mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax fas yéene ànd ak yéen ci édition bi nga xam ne nii mboolem taalibe yi ñu ngi ko doon waajal ay weer. tey nag fii ci Touba Darou Manane la délégation bi nga xam ne nii moo ànd ak ONG Euhlou kafe ci njiitalu soxna Maam Issa Mbacké ñu koy ñaanal suñu borom may ko wér ak gudd fan liggéey bi mu nekk suñu borom mottali ko ànd ak moom ba fas yéene incha allahu rabbi ci yeneen édition yi mu teewee ko mbokk yi xam nga ne délégation bi nag la ko dalee tamit dakaar ba ci fii ci Touba ñoom ñëpp pare nañ tey nag ñu ngi ànd ak sunu jëwriñ Cheikh Abdoulaye Dieye ci. Euh, bis bi ñu ci war a dugg dugg nañ ci oto yu ndaw yi itam ñu ci war a dugg dugg nañ ci ñu fas yéene nag départ fii ci Darou Manane euh, fas yéene nag dem fële ca Louga ngir daje ak convoy ndax ren sëñ Sidi dafa joxe ndigal convoy yi jóge Sénégal yëpp ñu mën a àndandoo. moo tax incha allah suñu demee Louga danañ fa dajeek ay convois yu bari ñu jóge Dakar ñu jóge Thiès euh, ak ñu jóge ci yeneen gox yi ba fële ci 50 Kër Moussa incha allah suñu jógee Louga nag ba ndekki ba pare nag la ñu fas yéene incha allahu la dem Nouakchott waaye balaa ñuy dugg Nouakchott nag faaw ñu jaar Rosso bu ñu nag foofu la ñuy defee suñu ay formalité bu ñu defee formalité yi ba pare nag délégation bi nga xam ne ñoo ñu war a gàttandu fa lañu leen di fekk. Eh, ñu ànd ak ñoom incha allah ngir fas yéene wéy Nouakchott noonu daal lañ ko fas yéene incha allahu taala bi am na koo xam ne mi ngi daan daan dañ ko gis mhm. mbégte mi mu daan àndal dafa mel ni moom nga doon jokkoo léegi soxna si waaw soxna si waaw moom ñëwul nag waaye xelam mi ngi ci liggéey bi ndax yaakaar naa ne saa bu ma toogee ay quelques minutes rek dina ma woo laaj ma mbooloo mi laaj ma tam mbaa amuñ jafe-jafe laaj ma tam mbaa yéen a ngi ci jàmm wax dëgg yàlla léegi nii bi may woo rek li ma doon doyee mooy ndax départ ngeen wala départ gu leen ma ne ko suñu départ incha kon nag nee na demul mais xelam ma nga fa xam nañ ne tam nit ñëpp jàppale nañ ko ci li mu nekk eh, ña fay teew tam jëmmam lañ fa teewee xam na loolu biig bi ma demee ci moom di ko ziyaare di ko tàggu daf ne ma li ma jàpp daal mooy sarsaar yi ngeen daan def yëpp sarsaar ren ji ci dàq sama ñàkk teew du doon dara ndax ña fa teew ñëpp samay jëmm lañ loolu daal la wax waaw kon nag mbokk yi ñu fas yéene ànd ak eh, délégation bi rek dem ba fële nga xam moom mooy Louga dégg ngeen ni ko Cheikh Abdoulaye waxee ne convoi bi yëpp ren seen siidi dafa bëgg mu nekk benn ñoom ñëpp ñu départandoo moo xam fu waay jóge rek ci réew mi ba ci ak ci yeneen gox-goxaan yi yëpp rek fas yéene def benn convoi dugg nag Nouakchott fa nga xam ne ni fa la lépp di dajee ci kanam seen siidi Mbàkke mu Cheikh Mahamadou Mourtada euh, moom nag euh, mu fas yéene jiite liggéey bi kon nag mbokk yi nga gis mbokki taalibe waa ahlu café ñu ngi noonu xale yi nga xam ne nag ñoom ñoo ànd rek ñoom loolu lañ leen di wan leen nga xam ne takku nan ci bopp ba nag Dame Café ak équipe pare na ñoom ñëpp kon mbokk yi gis ngeen leen noonu ci seen laxasaay ak ci seen maanaam euh, farlu ak Pastef bi nga xam ne moom la ñu wane ren ji kon jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ànd ak yéen rek fas yéene jëm jugal yi fa li nga xam moom mooy Louga ci li nga xam moom mooy caravane bi. amdi wa sukri li man kuli bi saa عند سرسارا لو صنع يواريد وعن البلا ثقات مسقاد لي من بني ديمان أنصاره لله كل للدا أبار ما كرمات من ارتلنا وفي أجم من سارا إن الذين إلى سردر خير قسدوا سيارة الفارخ دائرين أو شارا إن الذين إلى دردر قد قصدوا سيارة الفارق دارين أو سارة naar yaa nga naan diit waay gën sunum réew Seex Bamba mbër ma fa feeñ feeñut fa Gànnaar jërëjëf Bamba Dior jërëjëf ci li nga xam ne moom nga yëkkati ci bërëb boobu bërëb bu sell boobu noonu nga xam ne fa lu jërë ngeen jëf mbokk yi ni bàyyi xel noo ngi leen di nuyu di leen siyaara leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di ci jiital nag sahibul fadila jàmbaari lislaam Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér amaat nañ mbégte mbokk yi fas yéene àndaat tey yéen ngir dem màggali màggalu Sarsara édition 2023 tey jii ci altine ji ñu bàyyi ko Touba ci pencum daarul mën naan kër Seex Ahmad Bamba Xaadim Rasuul altine dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai mbokk yi bi ñu julee suba rek la ñu xëyee foofee xam ngeen ne nag bu fukki waxtu ci suba jotee ba toftal fanweeri simili la ñu agsi fii ci Louga Louga nag at mu bu ñu fi masaan agsi soxna maam Issa Mbàkke nii lay def wàcc ànd bokki taalibe yi dalal fi bokki taalibe yi am na itam daayira bu leen di teeru jox leen ay berne ñu saafowante doog a nag waajowaat fi nag ngir dëgmal euh, lu ngir dëgmal Sarsara mbokk yi loolu moo waral damay ànd ak sama nu xool jotaay bi nan la bokkee accès nan leen ak yee yan kàddu moo fi jëm incha allah ci fii ci Louga édition 2023. كلي بساعة لو ردا دون سوء إن سرسارا لو سنا يواريد وعن البلا ثقات مسقاد لي من بني ديمان أنصاره لله كل للدى أبار ما كرمات من أرتلنا وفي أجم من سارا إن الذين إلى سردار خير قصدوا سيارة الفارخ دائرين أو شارا إن الذين إلى سردار خير قصدوا سيارة الفارخ daarayni aw saara naar yaa nga diita waay Kajoor a sunum réew Seex Bamba mbër ma fa feeñ feeñut fa Gànnaar jërëjëf Bamba Dior jërëjëf ci li nga xam ne moom nga yëkkati ci bërëb boobu bërëb bu sell boobu noonu nga julli ci Seydina Mouhamed di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi loolu te wér ñaanal soxna maam Issa mu yàgg fi loolu te wér euh, édition 2023 bi nag dañ ciy sant yàlla ginnaaw suñu borom bàyyi nañu fi ñu fekke ko yàlla doon ko fekkee at yu bari di ñaanal ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoon di dem sama borom bi teg leen ci yoonu jàmm dem ak jàmm dikk ak jàmm te lépp luñ fa ñaanit suñu borom bi ful ko def ko ci réew mi di sant waa Ahlou Café yëpp rek di leen ñaanal jàmm di ñaan lii yàlla nañ ko yàgg a fekke te képp ku ci dugal sa ñaq yàlla nañ ko yàgg a mban te suñu borom defal ci xeewal yi sax dàkk barki Cheikhul Khadim euh, par rapport ak euh, bu ñu daan ànd ak soxna si gis nañ Pastef bi mm. ndax ren ji bi mu ñëwee ndax xam nga mi ngi ci ab liggéey ñu ñaan sans euh, may ko wér mm-hmm. nan la mel mm-hmm. waaw dafa mel ne mm-hmm. li ñuy wax ci yoonu Serigne Touba wi rek amul tànk yi gannaaw tànki kanam la am xam nga ni tey jii ren jii dafa mel ni moo ëpp doole convoi daaw ba te yàlla dogal na ne soxna si mi ngi toog fi barab di liggéey. liggéey boobu yàlla na ko ci defal ndam. te lépp lu mu ciy sàkku it yàlla ko Serigne defal. mu mel ne tey jii mbooloo min yaakaar yëpp buñ fi taxawoon. Mhm. ndax ñoom xaarim tey si ñu nga fële ca kanam. Mhm. bu fekkoon fii leen départ comme ñëpp. Mhm. dana doy waar lool. kon ñu wax ki li wax rek tànki euh, yoonu Serigne Touba moom. amul tànki gannaaw tànki kanam la rek. képp ku fi nekk rek nekkal fi Serigne bi. soxna si yàlla na fi yàgg lool bu déwénee mu ànd ak ñun ci yoon wi barke Seexul jërëjëf euh, Vieux Thiam Sëriñ daa wax ne waa qadi xawaaxi ji la siina fii xidmatin wa hablahum maaraamoo di ñaan sama borom yàlla ñi nga xam ne dañ koy liggéeyal ëllëg seen kër na nekk ci digg aljana loolu itam Sëriñ la ko boppam soxna si Samb ginnaaw bu ñu la nuyoo siyaar la yéen kàddu ngay dénk bokki taalibe yi xanaa di leen sant rek ndax yoonu Sëriñ Tuubaa moom tànk kanam la am waaye amul tànk gannaaw te lii may def moom suñu ma koo bañ ndax sëñ Touba ma ko sant te ñoo ko moom ndax soxna maam Isa bi may xamanteeg moom sama rakk jee tax ma xamanteeg moom yàlla def loola di dox ba nëga sama ndékki lii tamit muy dox ba nëga ni maa ngi ko jaayanteeg moom ca Sarsara fii dañ ko daan jaay ndékki yi première Sarsara bi ma demee maa ko fekk ca saal ne ko maam Isa maama ne ko ndékki yi lay jaay lugu maama ne ko teggil naa la ko bis na ka tey may ñaan nag ci doore Serigne Touba ak kattanam ak manam ma di ko man bu baax a baax di ko def su ma demee ba mënatuma ko sama njaboot nii di ma ko def maa ngi koy ñaan ci doore Serigne Touba ndax maam Isa kenn mënu koo fay ndax moom dafa baax dugal nu ci yoonu Serigne Touba kon kenn gënu ko kon nag maa ngi koy sant di ko gërëm loolu rek moo doon kàddu su gaawan bokk du moins ñu jégalu soxna Njawa gis nga kàddu yi fi mu toll ak liggéey bi fi xam ne an nga ko bokk taalibe yi waaw ginnaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julliwaat ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ñu ngi wax alhamdulilahi rabil alamin di santaat yàlla bu baax a baax ba nu yàlla fekkeloo bis bi nga xam ne tey jii le 29 euh, mai di départ Sarsara soxna maa Isa Mbàkke nekk ci ab liggéey waaye mel na na Mbàkke mi ci biir mbooloo bi ndax pas-pasam ak yitteem ndax liggéey sëñ baa moom tànk kanam la am waaye amul tànk gannaaw soxna sax la ñu booleek moom mooy Serigne Touba waaye baatin la ndax mën na nañu ko ci télévision bi am ci moom cofeel am ci moom yëg-yëg ndax doxinam ak ni mu mel ak yoonu murid fi mu toll nga sant Mbàkke ba pare di doxi doxinu soxna jaara dox doxinu soxna Maasa Waalo kon soxna si dafa sopplu dafa bëgglu waaye muy ku baax muy ku dëggu muy ku gore yàlla boole ñoo ngi moom keroog ba ma bëggee eh, ñu yëg de la ñuy jaar nu ma soxna Njaw fi la ñuy jaar jëm sar saara ma ne soxna nday jaag mi ñu bokkal daayira mu daayira ay raxmati nan ko jaayante donte benn siwo soow la ak benn boolu laax ñu dem yut leen ko ay booli laax la ñoon indi fii ak ay syndicat soow waaye sëdd bay dem ba midi mu leen di naajeel mu ne soxna Njaw naa laax yi neex na lool waaye dafay tardé liggéey bi ñu bu def ko ay xéewal yoo xam ne macha allah daaw fekkuma fi waaye dama téléphoné ñoom soxna nday jaag soxna toolu kase soxna Ayda Caab ñi ma àndal mu daayira ay raxmati bi ñu taxaw ko indi xéewal yi ren jiit wax dëgg yàlla noonu ñu ko taxawoo di ñaan yàlla yàlla saxal ko yàlla woo ñun tamit ca Sarsara di santaat suñu jëriñ soxna sëñ Vieux Thiam mi waa Axlu Café bu Louga ak soxna Aïda Sam mii nga xam ne saa su nekk xéewalam du dakk ak soxna Issa mii nekk ci barab bi ak sëñ Adama Jaxate macha allah di santaat yàlla bu baax a baax yal na yàlla doole dimbali ñun ñëpp ci barke borom Touba. ci turu soxna maam Issa. nee na mel na ni soxna si nekku fi waaye mi ngi fi. ndax ay tànkam ngi fi. ndax ay tànkam a ngi fi. ay bëtam a ngi fi. kon nee na li ngeen di jëf dara ump ko ci li ngeen di jëfit gëm nañ ne Serigne Touba tax nee na gëm nañ ne Serigne sal rek a tax ndax bu ci lenn ngistal amoon bu leen ne du ñëw bu leen leeree ne soxna si du ñëw da ngeen di bank seeni loxo waaye lii kawe na suñ jot lool yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla dimbale yal nañ leen fi yàgg fekk ñun de ñu ngi jëm Sarsara waaye wérante wuñ ne seen jëf ji ëppale wuñ leen ci Sarsara ndax buñ mënee taxaw wala ñu mën a toog wala ñu mën a toog ba gi seen jëf ji la kon ñoo leen koy seereel kon ñoo ngi leen koy seereel di ko seereel soxna si ngeen ko jaarale mu dégal leen jëf ji ci loxo Serigne Touba yàlla na ngeen ko gën a mën képp ku ci def képp ku ci def bu déwénee yàlla na nga ko gën a man ku ci yéene a defet yàlla nga am loo ci def ndax lii kët du jëfi caaxaan yéene la ak pas-pas ndax xam nañ jamono ji ni mu mettee ak fi mu toll waaye du jëm ci Serigne Touba kenn du ci def di ko yëg kon nag Serigne Touba mi tax ngeen di ko def yàlla leen fay neen lu fa jëlee daal yàlla nañ ko bokk ak ci barke Serigne Touba yàlla nañ ko teewaat te mu gën a neex gën ëpp barke Serigne Touba jëf bu yàlla taxee nga wet ca ak nga wetli ko ca ñooyam sëriñ Abdoulahat Mbacke daan wax ne ab murit fu fa fu mu nekk doon fa benn wala ñaar wala mu defa ñett ak mu defa junni ñoo war a bu jëf ji bu yàlla taxee day mel rek moom mi ngi Touba waaye jëf ji ngeen jëfaat tey bu ngeen ko daan defal soxna maam Issa Mbacke booba de kenn xamut woon nu mu demee ndax boobu mi ngi ci biir jotaay bi di ko gis xolam di ci feex waaye tey jii bi nga xamee ne que jëmmam wuuti na ko waaye xolam teewee na ko ngeen defewaat ko na ngeen ko daan defee day wane ne kon jëf ji yàlla rek a fay leen ci yiw mbokk yi kon mi ngoog dig daje incha allah fii ba Rosso Sénégal Rosso Mauritanie en même temps noonu la ñu ànd ak yéen ba Nouakchott en même temps ba ngeen di ci ànd seen bokku taalibe Mortala Kan Ndongal Touba ak ay caméraman am waaye xiru dafa waana alhamdulilah